asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi nag soo ko déggee moo di dafa am benn góor gu nekkoon bawal mu ni su fekkee ni yàlla daf la faral mooy koo xam ni bu guddi jotee nga wax ni kër gi fii la yem bu jant bi ne dang kel gi yem foofee nga waxoon ñun nag yàlla daf ñu nattu ci bañ injustice en février deux mille vingt et un bi nattu dalee ci kaw Ousmane Sonko mu fekk ñu ñun ñaar ñëpp ñu nekk assemblée nationale ñu xool ko suñu expérience ak suñu vécu may ñu ñu ni kii ñu wax de du violeur may ñu ngir yàlla rek tax parce que tuuma dafa metti te bi tuuma doon am am ci sama turandoo yàlla dafa wàcce malaaka mu weddil ko malaaka amatul gor rek moo mën a xam li mu xam ci nawle goram weddil ko ñu jël risque bi nag ñeme ko lool ñeme ko wax fu ne ni Ousmane Sonko du violeur Ousmane Sonko violé wul kenn mu metti woon nag mu am nag ñu ko gëm am ñu ko gëmul may jaajëfal nag di sargal ñi ko gëmoon ak man di sargal diaspora bi nga xam ne deux ans durant nañu nañ Sonko gis ñu ko bët ñu gëm rek jàpp fi ñu jàpp di sargal les combattants de la liberté di sargal les combattants de la démocratie yi nga xam ne tey ñoom ak ñi bañ injustice ñëpp ñoom la ñuy sargal waaye nag kontaanuñu ci verdict bi parce que Ousmane Sonko ñaar rek lañ ko reproché woon dañu woon viol ñun ñoo criminalisé woon viol xamoon nañ tam li tax approche bi moo doon bi ñuy criminaliser viol ay sachant la ñu jël sachant yi ñu jël commencé ci commissaires yi ak seen expérience ak bu ñu gisee ku ñu violé nan lay mel te dinaa ci dellu si sachant yi ñuy jël mooy des parquetiers particulièrement une parquetière bi moo xam ne pionnière la maa ngi koy rendre hommage ñu taxaw ni fépp fu ñu def délit nañ ko baare def fa crime pour que mu mën a criminalisation bi mën a dugg criminalisation bi am lu mu laaj góor ñi daal di yuuxu daal di su ngeen ko defee góor ñëppay dugg ñu ne déedéet parce que il faut des conditions boobu nag ñu daal di fay tagg juge yi daal di juge yi li tax ñu nekk juge xam nañ ko benn juge du siège boo xam ne mu ngi woon ci cabinet ministre de la justice daal di ah non juge du condamné noonu rek. juge bala moo condamné il faut que conditions yëpp réunir donc bu benn góor ragal ñu criminaliser le viol parce que conditions yi dina réunir ñu daal di bu fekkee ni preuve la ñuy laaj bu boobaa du ñu gis preuve te bu boobaa kenn du condamné Ousmane Sonko ñu ni su fekkee ni dañuy laaj ay fait gisuñu benn fait bu mën a tax ñu condamné Ousmane Sonko ñu am yàqin ni juge bu taxaw di juger lii. que Ousmane Sonko soit présent ou non te maa ngi waxaale ñi nga xam ne dañu nekkoon partisan wu présence Ousmane Sonko xam nañ ne tey soxlawul woon Ousmane Sonko taxaw parce que juge bi li ñu yaakaaroon ci moom bi ñuy criminaliser viol bi lim ci nekk loolu moo tax tey mënul retenir viol juge bi mënul retenir euh, menace de mort amul ñaar ñooñu nag ñoo doon crime yi biñ ko requalifié daf ñu metti nag parce que requalification amu ci yoon parce que dañ ni lii la rek wala du nekk lii amul amul condamnation intermédiaire amul peine intermédiaire ñun liñ doon xaar tey jii te terewuñoo nelaw terewuñoo dafa suñuy soxla muy relax pur et simple relax pur et simple parce que ku téye nit ngir viol criminaliser ko téye nit pour crime téye nit pendant deux ans interdire ko de sortie Ziguinchor la nekk maire mais amul droit dox ci diggante bi su fekkee ni ndax dañ ko tere sortie du territoire national ñu tere nit mu dem gis ay militant tere nit mu dem toppatoo ji maireem bu dara xewee buñ ne dañ koy convoqué ñu barricade fa mu dëkk ah mu metti lool mu am am problème njabootam am problème tey bi nga xamee ne ni loolu yëpp nee nañ amul dañu war a nag wëlbatiku nag def sunu mea culpa te foofu nag la ñuy interpeller président de la république parce que président mooy clé de voûte des institutions te soo xamee ni danga nga jàpp ci benn institution dépendre ci pour téye nit kooku su demee ba ne la la ko doon téye amul jëlal say responsabilité président Macky Sall nga démissionné démission boobu la ñuy xaar moom la ñëpp di woote tey ndax pour moins que nit démissionné na ci parce que yëf yi nawlonte la démocratie nawlonte la ak ngar mi la kon fii nga xam ne fi lañu ñu toll d'accord wuñu ci verdict bi bëgguñu boobu verdict dañu bëgg ñu bàyyi Ousmane Sonko déchargé ko ci li ñu waxoon yépp lépp lépp lépp nekk relax pur et simple def non lieu total ci lépp lu ñu waxoon xaw ma nag moom ndax man du ma ko toog fii di ko laajal avocat laa woon ci assemblée nationale waaye du ma nekk avocat tey buy laajte ni nañ ko an nañ ko dédommage xaw ma dina ko laaj wala déet mais li ci waroon tey mooy ak li ko teg rek yépp ci coono ñu dédommagé ko tey balu ko àq ci diggante jullit ak moroomam mu dem yoonam ñu ñaanal yàlla néew yi nga xam ne ñoo daanu te nag loolu moom kenn mu mënu ko bàyyi mu dem ndax dañoo dafa am lu ñu teg lu ñu tegoon requalification bu ñu ko wax rafetal la mais nañu wax ni kàcc am na à partir du moment où kàcc am na ah ba loolu moo tax dañu woon violé na ñu ni violeetul tey ñu ni woon moo def menace de mort ñu ni menaceetul tey kon la waxoon amul comme que nag la waxoon amul loolu bon lan moo fi des kon verdict bi verdict lan la verdict gu bëgg Ousmane Sonko du nekk candidat te dafay mel ni président te loolu danga ci war a setal sa der dafa mel ni yaa koy laaj ndax procureur bi ci sa ndigal la nekk te waxtu wi ñu condamné Ousmane Sonko pour que du nekk nekk euh, candidat rek ci procureur bi lay jóge muy ci bu njëkk ba ak muy ci bi ñu ñu dellu di delloo seen xel yi di delloo si xel yi wax ni lu dul dëgg kenn du ko nangu requalification bii du dara lu dul. am na luñ ko sosaloon loola nekku ci nañ ko dindi teggi lépp te ñu ko nag delloo nit ki ay àq maki yellee fam wax ni li fi liñ fi waxoon du dëgg donc mbir mi day niroog ni complot la comme complot la nag du ñun nit ñi tam ñoo dul nangu mu nekk verdigu complot ndaxte verdigu complot rek mooy mën a tax ñu kon condamné ko ci peine boo xam ne dafay dindi éligibilité am kon daane ko ci peine boo xam ne rapporté wul ci lañ ko jiiñoon parce que viol lañ ko jiiñoon te moo indi woon coow li moo indi woon dee ñi nga xam ne xam nañ ne Ousmane Sonko du violeur ñoom ñoo ni woon dañuy euh, xeex seen gëm-gëm ñi nga xam ne gëm nañ Ousmane Sonko ñoo ni woon dañuy xeex seen gëm-gëm ak lu leen ci mën a fekk kon loolu su fekkee ne dem nañ tey gloire à eux gloire ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon lu ñu di ko ci gën a suñu solidarité di ko ci gën a ndokkeel moom mi Ousmane waaye nag dafa am leneen lu des te loolu maa ngi interpellé ñi nga xam ni depuis quarante ans et plus ñu ngi xeex pour la considération de la femme depuis quarante ans et plus ñu ngi xeex pour la promotion de la femme depuis quarante ans et plus ñu ngi xeex pour rehausser le statut de la femme ñu jël benn jigéen tey muy une orpheline ñu jël ko en otage téye ko di ko di ko di utiliser ba di ko defloo tey loo xam ne koo xam ne tey amoon nga kilifa am nga nawle tey doo nangoo jouer boobu rôle parce que rôlu lii nga xam ne jiiñ naa ko nit ki inventé ci lu nekk amul compte nootenu du fait que ñëpp d'accord nañ ni Ousmane ko warul woon a taxaw ca procès bi parce que ki taxaw ci procès bi di wax présence sam ak na mu taxawee di wax rek weddil na Ousmane Sonko lépp luñ ko teg tegoon parce que koo xam ne teg nañ ko loolu mu wax ni moom lañ ko teg du yow yaay taxaw di waxe noonu donc juge bi comme lañ ma digoon ne ma juge yi am ñu assez d'expérience pour xàmmee ku nu violé ak ku nu violé wul yaakaar naa ne juge bi expérience boobu wane na ko à partir du moment où wane na ko li ci waroon a tegu mooy rek non-lieu total blanchir ko euh, euh, dindi ko suñ ko indemnité indemniser moo xam suñ ko indemniser wul moo xam mais lu bon bon bon bon bon tey lu mu bon bon ak lu mu metti metti raxas nañ deram mais raxas der bi doyul ma ñëw nag ci li nga xam ni moom moo amoon fii ci sacré kër ci sama kër ah yàlla dafa def un crime jamais parfait bi nga xamee ne am na man wax nañ ma dégguma ko wax nañ ma ne am na ko santaane ne dem leen ngeen lakk kër yi dem leen ngeen lakk oto yi wax nañ ko yàlla dogal na ki ngay xam ne moo koy relayeel a cinq heures du matin la ko def la ko wax a quatre heures vingt huit le visiteur yi ñëw lakk sama ñaari oto may wax ni am na ñu ko revendiqué ñi ko revendiqué jël nañ pièce si ñu ko revendiqué jox nañ ko avocat yi ndax déposé nañ plainte may dellu si waat justice bi pour leen wax ni suñu justice su réew ñu ngi leen di déglu ci loolu ndax ñu bari nga nekk fële ca prison ba ñu jàpp leen notamment les militants du Pastef ñu bëri dañ naan dañu posté ci Facebook ñu bëri dañ naan gis nañ leen ci vidéo bi di xat naatable ndax ñoom la wala du ñoom waaye ñii nag kii nag moom dafa posté ci Facebook cité nommément sama tur tegtal kër gi wax ni loolu lañ cee def kon yaakaar naa ne su avocat yi jëlee ces pièces à conviction jox ko justice maa ngi déglu justice ba xam loolu nan la ñuy def ak man ma denn siwaat ci président toujours président yow président Macky Sall yow mii clé de voûte des institutions lii du dëgg du yoon su fekkee ne am na ku bokk ci sa camp wax ni dem leen lakk kër ay dëmbëj yaa ko may doole te bu boobaa nag boo dee per de la nation tam man ma mënatoo nekk sama père bu fekkee ne am na ku wax ne dama lakk kër ay dëmbëj tey jariñoo sa doole defe naa ne kooku buñ ko tegul ci yoon parce que moog yow ànd loolu mooy sa place nekkatoo ci kon président démissionnaire ñëpp ñu ngi laaj démission président Macky Sall dañ la waxoon doo bokk mais tey dañ la ni nga démissionné parce que mënatoo dem jërë ngeen jëf.